الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سبودة الأكوان وكعبة الأرواح والأبدان سيدنا محمد مجمع شؤونه وحقيقة كنه سره وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين wa tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew mi ak ci bitim réew fu ngeen mun di nekk ci àdduna bi rek maa ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa di wat ci kartanal yalla di sofagi yau lima li ma sosoon yow ci walu noddu ngëneel yu bëree bëri nek na ca nek timit ci ñay noddu yonentu bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadis abi hurayra moko solo mun law ya'lamu nasu ma fi nida'i wa safil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilayhi walau ya'lamuna ma fi al'atamati was-subhi atawhuma walau habwan yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena wallahi nit ñi buñ xamoon li ci noddu ak sàppe su njëkk ci nga taxaw ca ci julli gi duñ ko ñafa taxaw dañ koy wantalé ku sa bant genn nga noddu waye duñ bàyyi noddukat yi nodd dañ koy wantale rek kenn duñ bayyi ndax noddu ngeenel dafa caa nek mu ne buñ xamoon ngeenel la ca nek timit sàppe su njëkk ñafa taxaw kenn du leen bàyyi ñi fay taxaw dañ koy wantale ku gagne taxaw fa su ko defete buñ xamone ci téla dem ci jakka ja waxtu juma ak yeneen waxtu yi wallahi dañ ko njëkkalante suñ xamone ci julli ji gexe ci mbooloo ma ak ngeenel gi nek ci julli ji suba ci mbooloo ma kon de ñi sax duñ ko bayyi ñay dox waxuma la ñi mëna dox nak far kon de dañ leen dikkal donte dañuy raam kon mbokki julli ñi nañ fonku noddu tay nak ñun suñu société bi kat yi lañ gëna xépp fi tay fo dem di ñaani jabar boye boo ka ngay ñaan jabar di sa mbokk ñu ne luy sa métier nga ne maay noddu ci jakka ja ñi nangu ko nit ñi delu sa guru ga dakk la su am modu modu jóge ko fele bënn nopp ya tak ponkali sen bolé ko wàccee tubay ja sol dal yo xamni kum dëgg lor ko bu ñëwee ñi may ko jabar yow noddukat bi ñi xeej la fuñ jëm musiba moo ñu dal toroxtaane moo ñu dal rek xamuñ fuñ jëm bari na xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na noddukat de lu lépp lu dégg doom dafa koy jéggalu yàlla al muazzinu euh, dégg nga al muassinu al muazzinu yaxfiru lahu madda sawtihi wala yuxfaru lahu madda sawtihi noddukat distance su kàddoom nga lu ko dégg rek deef na ko jéggalul yàlla kon mu ne sax du ca yem lu tooy ak lu waw lépp a ca yem xaddis boobu nasaa yi moo ko indi kon noddu nekk na ci lu lu rëy rëy boo demee ci fukkaaw yi nag ah, moom noddu lu rëy rëy la xataabi ab ab la bu mag a mag dafay wax ne ah, fu baatam xem rek fa la njéggaloom xem moo tax kon kuy nodd bu ko mën na yëkkati baatam yàlla dimbali nañu ci lu yëkkati suñu baat muy rajo yi boo ko noddee lu mu suufe suufe fu nu tollu dégg ko yonentu bi neen tamit noddukat yi mu yowmal xiyaama ñu ñuy gën a yëkkatiku daraja buñ ñu bañee yowmal xiyaam ñi ëpp daraja gën a yëkkatiku ca kanam yàlla mooy noddukat yi al muaddinuuna atwalu naasi anaqan yowmal qiyaamati ay aktharuhum tasawuqan ila rahmatillahi ñooy ñi ëpp ak cofeel ca yërmande yàlla ju yaatu ji wala ñu ne sax aksaruhum amalan ñooy ñi gën a bëri jëf ju baax ca kanam yàlla kon noddu lu rëy rëy rëy la yonent bi nee na ñett sallallahu alayhi wa sallama bis pénc lu tiitaanga gay rëy rëy ñoom duñ ca bokk waaye tamit kenn du leen xisaab di leen réglé ñoom kay xaljaana lañ jëm directement mooy euh, dégg nga euh, képp koo xam ne dafa jàng alquran te ba mu koy jàng jubluwul ci neexal baat jubluwul ci tiitaru jubluwul ci wanewu jubluwul ci ndéggtal da koo def rek ibtigaa wajhi laahi ak mu ne koo xam ne dafa jiite nit ñi nekk seen ilimaan mbaa nga nekk seen président mbaa nga nekk seen ministre mbaa nga nekk seen chef de quartier mbaa nga nekk seen gouverneur wala nga nekk seen maire population ba yëpp ànd ak yow wala la ëpp ki ñoom ànd ak yow gërëm la yow majorité daal moom nga am ku mel noona kooka ala kulli haal bu yowmal qiyaama doo am problème li ëpp ci population bi jéppi la mere la wala quartier bi ñi nga jiite ñi ci ëpp mere la wala jàkka ji maa moom yi ci ëpp mere nañ la ngir sa ñaaw ak jikko wala maire bi nga jiite waa maire bi ña ci ëpp mere nañ la fu ñu toogee ñu ngi wax sa bon kooka moom doo gis sax yërmande yàlla ja mu ne ñetteel ba mooy noddukat kuy woote jëmee ki julli te yàlla rek tax jubluwut ca yalwaani jàkka ja jubluwut ca eh, teel a dem gaag saraxi sondeel yaag mbu eh, eh, xaalis baag ya ca yalla rek tax ndaw lu nu noddu kat yu bari jambar lañ mais saraxi jàkka ya dana dem ba yak sen noddu ñu ci bari su ñoo ñoo ñooñu bokkatuñ ca moo kon muni rajulun qara alqur'ana wajhillah wa amma bihi qauman wa hum bihi radun wa daa'in yad'u ila as-salati ibtigaa wajhillah wa abdun ahsana fima baynahu wa bayna rabbih wa ma baynahu wa bayna mawalihi koku yonent ko wax hadis la tabarani yu génnee nako mu bokku ci ibnu umar ya kon noddu ku koy def ci sun society bi ya bokku ci ñañ gëna xex kenn dula may jabar kenn dula la ay jang kenn dula tuddé dara waye yaay ki gën a yëkkatiku daraja ca kanam yalla bukhari waxana ci banina hadis bu mu mu bokku ci hadis ibnu abbas ya mu ne génn goor ñew ñëw ci yonantu bi ne ko xamal ma ta nga tektal ma wala nga tegtal ma jëf ju may dugal aljana yonent bi ne ko kon demal nga nekk noddukat demal nekk noddukat boo bëgg a dugal mu ne ko man munumaa noddu mu ne ko kon demal nga jiite ji del jiite julli yi mu ne ko man munumaa jiite mu ne ko kon nag demal nga tolloog kay jiite saa yooyu kiy jiite taxawalee rek fekk yaa ngi ca peggam moo tax benn waay warawal buxaari yu fi taarixihi an ibni abbas qaala jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam fa aw dul nii ala amalin yudxilnil janna qaala kun muadinan qaala laa astatiu qaala kun imaman qaala laa astatiu qaala fa qum bi isa bi isaayil imaami kon ak am daraja joo xam ne am na ko ak njëriñ yoo xam ne am na ko noddu nag euh, ñetti façon noddu moo am moo tax bul jéggi bii noddu mu wute gi nga xamoo rek nga contre borom noddu ñetti façon moo ci am noddu dana ñew ñi ñaar ñaar allahu akbar ya allahu akbar leg la ñu wax ñaar yoon allahu akbar allahu akbar rek leg euh shahada ya muy ashadu an la ilaha illallah ñi ñent ñental ko xam nga lool bokku ci yiñ min ñun ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah ashadu an la ilaha illallah ashadu rasulullah nga ko yoon allahu akbar ya nga wax ko ñaar yoon bokku ci liñ min kon lola ben façon la ci façon hi noddin yi su boobaa nag kay def booba ashadu an laa ilaha illallah ñeenti yoon moom ci boppam wa ashadu anna muhammad rasulullah ñeenti yoon benn bu ne ñeent la waaye nag ñaari yoon ya dafa koy wàccee yeneen ñaari yoon ya mu yëkkati ko ca kaw kooku mooy mazhabul mutaaxirina min ashaabi malik mooy ñi adhéré wu ci ngiru malik ñu mujj ñëw seen mazhab bu mujj bi lii la mooy noddu ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah benn bu ne ñeent ñaar yi nekk suufe ñaar nekk yu kawe allahu akbar nekk ñaari yoon kon benn façon xam nga ko façon ba noddu gu ñaar ñaaral ñaar ñaaral mooy xale hayya salaati ñaari yoon hayya alal falaahi ñaari yoon benn bu ne nga wax ko ñaari yoon allahu akbar ñaari yoon laa ilaha illallah wenn yoon bii tamit bokkul ci biñ miin bokkul ci biñ miin biñ miin xam nga ne bokkut ak bii ay yàlla salaati da ko wax ñeenti yoon bii nga yëkkati bii nga suufeel ko yii nga yëkkati ko yaa nga suufeel ko allahu akbar ñeenti yoon waaye bi gis nga ko allahu akbar ñaari yoon laa ilaaha illallaah benn yoon ay yàlla salaati ay yàlla benn bu ñaari yoon bokkut buñ xam su ko defee nag beneen bi na ci bu ñaareel bi noddu mooy allahu akbar ya ñeenti yoon dégg nga waaye du hutul ñaar mais ñeent la mooy masaabu imam syafi'i bu ñettel ba nak moy takbir ya allahu akbar ya ca benu noddu ga ñent yoon ashhadu an la ilaha illallah ya mom ñaar yoon leneen luddul lola nak lo waxati duut ashhadu an la ilaha illallah may ñaar allahu akbar may ñent lo waxati rek ben yoon la koku moy masabu abi hanifa waye nak imam malik minja pumom mom lamu leungal ci sen ngir ya moom mooy amalu ahlil madina toujours waa madinatu na wara lañuy jëfee rek loolu lay Malick ñaareel gën di def te loolu mooy noddu gi ñu xam ci suñu réew mi suñ mag ñi taataanee ko ci ngir imaamu Malick Malick taataanee ko ca la doon waa madinatul munawara mi mu jëg yonantu bi lañ doon jëfee Malick andil ñu ko tax kon ngir ngir ngiru Malick daal ngir mu leer la sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ma ngi cay ñaax taalibe yéen topp leen ngiru Malick mu laab mi mu leer mi maam Alaaji Maalik mu ngi cay ñaax taalibe mi ne nañ ko topp maam Alaaji Abdoulaye Niass loo ko mos a indil lu duhul ngiru malik mu ne maa la jàngal te samay téere nga jàngee bu ma ko wan imaam borom jaamal dafa bëggoon Maalik ba ba mu demee madinatul munawwara siyaara ji yonantu bi dafa ne faw dina dem ba tiim xabru Maalik ba njukkal ko ñaanal ko yàlla su ko defee kon nag saafi yu moom noddam ji fa koo tegtaloo ca jëfee lu makkata ak ci ay asaar yoo xam ne yu wér la xanafi yu na yi seen nodd ga dañ koo tegtaloo ci ahlu kuufa ci ak asaar yoo xam ne yu wér a wér a wér la kon Malik moom jël amalu ahli madina moom lañu ñu moo tax tamit loolu nekk na loo xam ne lu wér a wér wér la kon nodd ngoog nodd nag boo cay dem ci nodd ak suba gannaaw boo waxee hayya ala hayya salaati ala falaahi boo ne hayya salaati wa hayya falaahi faawu nga yokku ci asalaatu xayrun min an-nawm ñu ne bilaa la ko waxoon yonent bi dafa yaboo dafa dafa yaroon njabootam gi ci dëgg bañ ñeme ko ci dëgg waxtu waa jor rek mu yéex a génn bilaal jàpp na yonentu ba ngi ci biir mel ni dafa fëkk nelaw te moom nag inna lahu qalban ida naamatil aynaani lam yanami rek mu nodd yonentu génnut ba ba muy jeexal mu ne nag asalaatu xayru mina naw mi julli dee taxawal ko ca mbooloo ma moo gën nelaw yonentu bi génn kon bilaa la saña wax loola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la keneen kon nag ah lu waay man di jiite bu waxtu wa jotee bàyyi ko da nga dem julli ji xam ne sa nelaw yële asalaatu xayru na noomi julli gee ko gën loo mën a xilif bu julli jotee bàyyi ko te nga xam ne asalaatu xayru na noomi sa nelaw yu neex yi boo ko daggut boo lëggee boo duggee sa bàmmeel doo xam nelaw yu neex ku bëgg xam nelaw yu neex ci biir yi bàmmeel dafay dag fa nelaw nexé dem di taxawal julleeg yàlla gi nodd momu nak bo jele ibnu mahzura ci noddu kat yonntu bi la bokkon mo daan wax ne ya rasulallah ya'limni al-adhana yow yonntu xamal ma nodd yonntu bi xamal ko ko ne ko fekkee nodd ak suba la nang nga yok as-salatu xayru min an-nawmi as-salatu xayru min an-nawmi ñaar yon yoon nga door wax allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah nodd mi tamit nag wax naa la masruu masruuyatum gi yoonal gi ñu ko yoonal wax naa la kayfiyatu geeg nuñ koy defee waaw nag moom kon lu ci des rek mooy ma wax la ay aadaabam aadaabul muazzin ak aadaabul azaan teggihinu kii nodd ak teggihi ñi nga xam ne nodd da koo làmboo sopp nañ ci kii nodd na laab nodd ba pare dem di jàppi gënut daa war a jàpp ba pare di nodd waye bo jàppatoon noddu timit noddu ga wirna waye liñ bëgg nga japp ba pare doron a nodd donte nag jang ngi fekk ya nga xamé janaba wax dëgg yalla ba tay yaq noddu ga wayu nak bul duggu ci jakka ja kon demal ci biti nga noddu ci biti nak ku yore janaba duggu ci jàkka waaye nak bo noddé ta yoré yorewoo ta ya nga yore janaba ya nga ci biti jakka ja noddu ga wirna jëru jërul ñuy so yoré yorewul janaba ta fekk jappo waye noddu nga timit ya nga ci bir jakka ja noddu ga wirna waye li gën nak nga laab ci hadas ci khabas lepp door a taxaw ci bir di nodd sopp nañ ci ki nodd mu taxaw da nga wara taxaw lolou lañ bëgg boy noddu taxawal su ko defé comme ni khutba juma da nga sopp nga taxaw khutba xutbay tok bu sa tanki yi baxé jaru ko Muawiya ko ñëk def ci diina ji bam mu ba nek mak jëmëm je tankam ya xatanatut ko te moy iliman ji ko ben buy buy buy ki rek buy buy khutba rek tok ca foofu la xutba toog commencé waaye yonentu dund na ba génn àdduna musta xutba toog aboubacar musu koo def omar ibnu xataab musu koo def ali ibnu abi talib musu koo def ci xilaafa ak muawiya ci la loolu mosa xam waaye kooku tamit loroo tax mu toogoon te ad daruraat tubihul mahduuraat kon noddukat bi bu nekkul handicapé noddukat bi tamit ay tànkam baax na ling sopp mooy na taxaw bu nekkee handicapé nag wala tànk ya baaxut ba tey mën naa toog dara nekku ci booy nodd tamit dañoo bëgg nga jublu xibla noddal ni jublu xibla loolu lañ bëgg lu dul xalaat dégglu fekkee ne noddee hoo rajo boo jubloo xibla ba ci kanam jublul xarfu jublu ndeyjoor jublu càmmooy ñëpp dégg sa kàddu gi mën a xam ne waxtu wi jot na waaye lool rajo ko folli ndax booy julli booy booy noddu mën ngaa jublu xibla rek rajo bi moom dana ko yóbbale waa penkoog waa soxoog waa ñëpp kon ibnu munsir dafa ne ijmaa bi borom xam-xam yi def daal moy ne noddu ci taxaw lay doon moy sunna te mo gëna mëna jotale ci le baat nak nag booba amagu ton bo taxawé ta fekk amoon radio ci lañ koy gëna mëna dégg mo andi won sorol yu guddu yi sax noddu kariya taxaw ci kaw sorol ya di jooru yëkëti kaddu yalla gi lay sunna timit moy nga jublu qibla ci noddu ndax kat noddukati sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam buñ daan noddu dañ daan jublu qibla kon nak su fekkee da nga ko da nga noddu jubluwuloo qibla def nga luñ sib rek way yaqku noddu ga sop nañ ki noddu bu mu wax boy wax bay wax wax yalla kay kàddu yàlla gile di ko jotali loy waxati jeexna na wax bul nuyo ku la nuyo bu ko fay ku tiso liñ alhamdulilah rabbil alamin bu ko wax yarhamukallah su fekke nak da nga wax ta fek daror yoto tax nak loru ah ñu ne batay noddu ga wér sop nañ ci ki noddu mom dal mu muy gestu Euh, ci wàllu ndeyjoor wàllu càmmooy mooy loolu la ma la wax rajo ko folli booba rajo amagutoon del ndeyjooru nga càmmooyu penku xarfu ndax ñoo ñëpp dégg ko waaye léegi nag rajo folli na loola sopp nañ si kiy noddu mu jël baaraamam ya dugal ko ca nopp ya jooru ca kaw noonu loon daan def Bilal dafa ne fa jaxaltu usbu'i fii uzni fa azantu li la wax su ma daan noddu may jël samay baaraam dugal ko ci samay nopp nodd yonentou bi gis ko waxut ca dara kon sunatu taqrir la hadis bobu abu Dawud moo ko ne ibnu hibban tirmisi yu neena na borom xam-xam yi sopp nañ kiy nodd mu jël ñaari baramam ya baram ma taayee kay ya bu moy ba bu nday jor ba bu moy ba mu def ko ci noppam moy ba bu jor mu def ko ci nday jor ba sopp nañ ci ki noddu manam euh, mu noddu euh, hatta walau kana mun fi Sahara, su fekke da nga nek ci hall bëgg nañ nga noddu moy hadith ma la waxoon abi sayyid al xudri yu kat la won nek ci caawa ga baata noddu neex ko mu laaj ko yonentu bi ndax man na nodd mu ne ko ah kay noddal lu dégg sa baat bi lu la yàlla fekk mo ñëw ci mom ne ko inni araka tuhibbul ghanama wal badiyata fa ida kunta fi ghanamika aw badiyatika farfa sawtaka bin nidai fa innahu la yasmau mada sawti sawtil muadhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawma alqiyama mu ne ko dégg diis naa nag ku bëgg caawoo moom mooy maami suñ mbokki pël yi ñu bëgg caawa lañ bu leen kenn yab abi saidul xudri yu mooy seen mooy seen maam nit ku baax la jege woon yonantu bi yonantu bi ko xoo ne ku bëgg caawa nga waaye nag maa ngi lay xamal boo nekkee ci sa caawa gi di sàmm nekk ci sa àll bi hee boo déggee bu waxtu julli jotee man nga noddu lu dégg sa baat bi mo xam jinni la wala nit la wala lu mëna doon bu yowmal qiyamé dana nek sa avocat di la défendre way ku bari avocat kay li nga dugg man nga ci génn ci baax ak hadis Imam Ahmad ko wax ak imam bukhari yu moo kon yow mi nek ci sa tool ya man nga ko mo xam da ngay ruuj mo xam da ngay bay yau demet yow mi nek ci sa yoonu tukki wa go ci dekk man nga ko yoy yeb man nga noddu lu dégg sa baat bi yobul la kuy noddu tamit bëgg nañ mu muñandiku ci noddu ga du da ngay yëkkati noddu ga wenn yoon da ngay noyyi nag boo ne allahu akbar allahu akbar nga daane yëkkati haat daane di ko def pari nànk nànk nànk waaye nag doo jël lépp rek bëgg koo xenu wenn yoon nag ba xamut ay daane ay daane waay comme mi ngi mel ni ku jàng alquran dafa am ay aaya yooy taxaw ay taxawaay noddukat bi dafa ay taxawaay kon tamit Euh, euh, kii noddu tamit bëgg nañ buñ ko mënee tayal rek tax mu ñàkk fayeeku dara ci noddoom ga def ko rek ibtigaa an li wajhillah may noddu ngir sàkku payoor ak yàlla te payoor yàlla ku ko xam ñàkkoo dara aa ah, lu dul mu xaajoo ko nag su fekkee ne wax dëgg yàlla nag waxtu wu jot mu dagg hitteem dem di noddi te loola mu doon hitte jamang ci huutu ñëpp te loola dana ko yàqal la mu waroon a yóbbu ca kër ga kon nag buñ ko fayee tamit dara nekkut ci man nañ ko fay mu meuna a ci kër yi ya. bo demé tay Arabie Saoudite réew yu bari ci wa asi dañuy fay sen noddu ya salaire lañ am iliman ya dañ leen fay jox leen i oto rang biñ leen fay sa mo gëna mo moo ëpp na rangu ministère lool la waaye su fekkoon nak da ngaa boole noddu ak jité dara nekkul ci mom ñi lay fay boobu moo gën a baax moo gën comme bi nga ñaar yi bo demé timit màkkatal mukarrama ci jakka yenen yi nga xamé jakka yonentuba jakka ci masjidul haram jakkay yu iliman bari iliman jey noddu moy jité mom moy bolé nodd ak jité ñu ñu ci bari nak dañ leen fay kon su fekke dang ko aajoo yaangi nek ku ñak ta yaay noddu ta fu melni ni wax deug yalla li hepp ci suñu société bi ñi ñak rek ñoy noddu yeguguma patron buy noddu milliardaire buy noddu mba millionnaire man de xawmako wala man yëguma ko waye da nga nek ku ñak nek ku sakku xam-xam ah way way nañ la jox dara nak nga ko jëndé téré man ko koo euh su boobaa tamit paywar ga la yàllay fay nak gu magga màgg la te du yak dara ci lele timit Uthman ibn Abi al-As mo ñewon ci yonentu bi ne ko ya rasulullah ij'alni imam qawmi qala anta Imamuhum, waqtadi bi adhafi bi adafihim bi adafihim wattaxis mu'adhinan la ya'khudhu ala adanihi ajran Abu Daawud Nasaa'i Usmaan ibnu Abil Aas ku mus la woon mu ñëw suntu ne ko damaa bëgg nga def ma ma jiite sama nit ñi njiit nag ñu bëree ko bëgg yonentu yàlla Ibrahima waxoon na ko ba ko yàlla ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaaman qaala wa min zurriyati yonentu yàlla Yuusuf waxoon na ko ij'alnii alaa xasaa'inil ardi ndax inni hafiizun aliim moom tamit mu ne ko def ma ma nekk ilimaanu sama nit ñi yonentu bi ne ko ah waaw def naa la ko nag waaye boo demee na ngay roy ca ka gën a yow yaay njiitu seen nit ñi nak nag bàyyi fi gi da nga dem di roy ci ka gëna a lompoñ sa nit ñi jëlal noddukat ku lay noddal sa jakka ja noddukat bo xam du fayeku ben payoor kon boy noddu nga ñaka fayeku dal bu mané xam mo gën su ta ñàkk nak mu seuf fa rek nak ala kulli hal pexé amut su boba timit loola nekk di sa pexe ah, fuqaaw yi depo nañ ne nak kenn war sa noddu lu du nga xam waxtu ba nga xam waxtu fu mu toddu ndax ba noddu dañ koy def balaa bay waxtu way dugg waaye doo xaar waxtu passé ngay nodd doo xaar te waxtu wa ñëw ngay nodd su ko defee kon nag euh, waxtu yaa ngoog nodda ngoog tabaarakallaahu ak ngëneel yi nga xam ne nii làmboo na ko nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax fonk ko su ko defee tamit taxawee ko euh, boo boo lëggee boo ma toppee nag te si waxtu dinaa la wax ngëneelal yow mi dégg noddu tamit bul bàyyi sa làmmiñ weeg loxoy neen na nga toppandoor lay noddukat ba di wax yàlla dana la bindal yool boo xam ne bu rëy la su ma ci bàyyi koo wax la li xaab ak fooraay gi nga xam ne nii tamit moom foor na ko waaye loolu nag suba ci waxtu wi la doon incha allahu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.